final régional bu nawetaan bi am ci njaareem ci samedi fukki fan ak ñett Bambey am na ci ñaari ay fee muy cadet ay fee ndox mi ak senior ay fee rabey li lee tax inspecteur Ndiaye mi ñu dénk wàllam sport bi daal di seeti ñaari équipe yi yëpp. je pense bien que c'est pas donné à tout le monde y a combien d'équipes yoo xam ne ñoo fi nekkoon tey di compétir ak yéen yàlla may leen ngeen génn ci wala bokk ci ñi nga xam ne tey ñoo war a finalu donc euh, pour le compte de de la région. kon nag dama leen ciy félicité maintenant di leen encouragé également parce que damay naan li may wax rek une finale ne se mais une finale se gagne. ba pare li nga xam ne aussi mu beneen compétition muy phase nationale bi donc lépp li ñu ci mën aussi dañ ci taxaw donc li la ciy baax moo ànd ak presse bi pour lan pour ñi nga xam ne donc on n'a pas n'ont pas pu faire le déplacement donc toog seen seen kër xam ne kat donc vous vous représentez non seulement la commune le département mais tout département en entier. encore une fois vraiment maa ngi leen di wax ni leen daal. ngeen gën a insister surtout les coachs yi travail ak boy yi nañ gën a insister ci l' aspect technique un jour s'il n'est pas techniquement bon mënul répondre ci benn dispositif tactique waaw kon te la technique d' abord mooy moo mooy mooy mooy dominer bañ jógee ca ndox mi sax ñoom ñi la sax dem nañu ci ay see réveil yi di yëkkati fa ay kaddu yu ni mel la bu ñu ci ndox ma waawaa ndox mi man leen final kenn du ko joué dañ koy gagné donc demain incha allah dañoo dem comme ni ko directeur technique départemental waxee dem wuti ndam su ma ko waxee war ko mën a gëm lu tax ndax ñi fi nekk ñu bëri xam naa fi nekk di joué wax dëgg fa yàlla xam naa potentiel bi ñu am donc demee occasion la ñu mën koo wone maintenant am na ko wax sànq c'est important ko ñu au passage li mu wax c'est très important gis nga football mooy da ci am solo et je pense fu ñu jógee ci finale bi dañoo wax dem ba phase nationale kon nag les mooy vraiment dañ koy soxla. dañuy tudd Sadio Mané ñu leen fay tudd Bambey gépp loolu ñuy xaal ci yéen te man ngeen ko te loolu nag bu ñu naxante liggéey la football moom jamono ji ah il faut ngeen travailler travail ci aspect technique bi bu baax a baax a baax travail ci aspect physique bi parce que ay senior ngeen ñaar yëpp ngeen di boole liggéey pour mën a nekk ay joueurs yu taxaw yoo xam ni ay compétiteur ngeen di nekk parce que football dafa metti te c'est la compétition te ki la gën a liggéey rek mais vraiment moo lay gagné loolu moom yéen a ko gën a xam. ñaari équipe yi ñu jaar yëpp seen i dirigeant la ñuy njooy rek moom moo di ñàkk ak jàppale te ñuy sàkku ci nga xam ne ñoom ñoo ŋànk département bi ñu jàppale leen. ñu jëm nag parlant des phases régionales et des phases nationales bon c'est un cri de cœur boo xam ne dañ koy lancer parce que fi à chaque fois que une équipe di dem phase régionale wala phase nationale accompagnement bi dafay des et je pense que comme ni ko grand bi waxee léegi nii représenté wuñu ndox mi réveil mais c'est tout un département boo xam ne da nga koy représenté tey man j'aurais ñu gis benn car bu jógee Ndondol comme tu l'as bien dit benn car bu jógee Réfane uniquement pour accompagner réveil ak ndox mi. bu jee wax rek loolu la ñuy waxaat rek à l'endroit des autorités ASC bi nekkatul ay ASC koñ bi rek ay ASC départemental la boo xam ne ni département bi yëpp lay représenté suba sa final ba bu ñu ñëwaatee it di dem Dakar région bi yëpp la ñuy représenté ndax ñaari ASC lañ si jël donc réveil bokk si loolu c'est quelque loolu vraiment ñu koy ñu leen ñu lay remercier bu baax a baax di si lancer waale appel autorités bu ñu jugee Diourbel dinañ jàll dem Dakar football yi moyens demeewul noonu possibilités yi demeewul noonu. message bi dañ la koy ñaan nga jàllale ñu ko ci autorité bi nga xamante ne moo gën a kawe même bu dee dem ba ci ministre des sports aussi nga jàllale ñu ko fi nga ne ko am nañu équipe boo xamante ne dafay dem Dakar soxla na ko jàppale. fàttali rek ñaari ay ASC yooyu yëpp buñ jongante final régional yi. dañ naan coow dem ca Dakar. jouer li nga xam ne mooy phase nationale yi. di dajale équipe Sénégal yëpp ci ay nawetaan. ñu amale ko ren ca Ndakaaru Ndiaye jël Diop Sangomar.